bi ñu fiy ñëw defe naa ak atelier yi ñu fi def sa heure bu ñu waxee monsieur le maire danaan man mosuma jot benn yoon fu jigéen bindee ni damaa bëgg suuf suufu kër sax waxoon suma ak tool waaye defe naa ne bi nga xamante ni IPAD jaar na fi ak dëkk yi nga xam jot na cee jaar ak jigéen ñi mu jot a rencontré naa fi mu ne monsieur le maire sonn na lool lool lool ci jot ay demande ci suuf beneen bi ci tamit képp kuy jigéen la nga amoon ci suuf yaa ngi ko jéem a valoriser képp kuy jigéen xam da nga daan dem taxaw sa jëkkër mu di la abal mbaa nga dem taxaw sa càmmoñ mu lay abal bu ñu miraasee doo ca mën a accéder defe naa ni jaar bi nga xam ne IPAR ak CNCR jaar nañu fi permettre na tey defe naa ni jigéeni commune bi defe naa ni ñoom ñëpp a tey taxaw pour am suuf waaye nag fexe bay tamit su bu ñu amee suuf ñu wutal ko ay këyit yoo day wane ni dénk nañu leen